réew mi euh, sa diggante ak Balla 2 ëma tay ci presse bi ñu gis ni ki nga xamante ne moom Aziz ndjay néna le combat qui s'impose moy combat bi wara am moy confrontation Eumeu sen Balla 2 woo nañ la jox la ci avance wala woo nañ la proposer le combat bi wala yow est-ce que di nga bëriwaat ak Balla 2 pour une troisième fois waaw parce que bon su ma ko maag Balla Gaye de Gaston taxawaloon nu ko après mu yàqu. Mhm. voilà mais gis naa ni làmbu daf ñu war a boole li Aziz Ndiaye wax dëgg la. parce que tamit aussi ñu ñaar ñu fi c'est ça foofu ñu laale. bu gars yi doxee rek ñu déggoo bañu ma ko dàqu mu ko ànd ba vraiment mu bref moom. Mhm. te tamit aussi maa ngi félicité tamit a Ndiaye bu baax ci Euh, ak Baye Ndiaye sax laay wax parce que rakam mooy tëgg muy Baye mu koy jàppale. xam nga maa ngi leen di féliciter ci événement yu mag ñuy teg ak dundal bu ñu dundal làmb ak jéego yi tamit làmb teg waaw làmb teg na ay jéego yu mag ci kanam te à cause de Aziz Ndiaye ak euh, ñoom makaan jàmbaar production promoteur yëpp mais rawatina Aziz Ndiaye gis nañ tamit aussi ni muy yokkee làmb ku ron no ampleur bu mu teg tamit aussi vraiment que ni bon gis nañ luy avancé lu làmb la quoi. mais nag dàquma benn combat dàquma benn combat. mais boobu tey. suñ la indilee avance nga jël ko tey tey. waaw si woo nañ la. <laughs> non non wooguñ ma nag quoi waxtaan guñ ci mais xam naa ne dinañ waxtaan ak staff bi quoi ñoom bu ñu amee lu ñuy dox am naa staff ñu war a jaar. ci toll rek après man danañ ma danañ ma rendre compte mais bon la boo xam ne bon gis nañ ni combat bu neex la quoi fu mu toll nii moom mooy combat bu nga xam ne nii. jàpp naa ni mooy journée bu gën a rëy quoi. tey ëmma quatre ans ci ginnaaw proposé woon nañ la benn tournoi boo xamante ni yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci làmb ku mel ni Balla Gaye 2. Modou Lo ak Tapha Tine wala Bombardier. tey lu yàqoon loolu. waaw loolu nag vraiment ci man la yàqoo quoi waaw ci man la yàqoo. ci prix la woon wala ci lan. non non prix bi yàqu ci biir parce que li ñu ma fayoon dèjà yegg na ay six cent et quelques millions jàpp sept cent. waaw mhm. tey ñi nga bañoon ñooñu ëlbatiku nga bëriwaat ak ñoom ndax rëccu nga loolu wala no kenn rek laa waxoon moo taxoon jëlu moon combat bi parce que suma kàddu taxoon jëlu ma ko bi lu muy bëri bëri yeggoon na ko rek kan la woon euh, Balla Gaye la woon léegi pourquoi nga bëgg nangu bëri moom waaw parce que xam nga rek père lañ am jaar jaar bu du day war. mu am guddi yoo xam ne métti woon na mu taxawuma taxaw mu nekk guddi yoo xam ne wéetoon naa ah. mhm. dem ba fi sax dem France def fa six mois gedd carrément bëggoon sax xam nga mu nekk ci ci taxul di mu motiver vraiment ci bépp côté nag ah ci bépp côté xam daana mu fekk ba France moom tout le temps dama doon fekk parce que boobaa moment saa mu ñëwee Sénégal rek bon tribunal mu ñëw ko damay ñëw assiser zère lu may zère après mu jëlaat billet lendemain bi dem ko ok mm-hmm. boo ma nekkoon ci nit boo xam ne bu guddi moom laa dem gis mu taxawoon ma trop jàppale ma ci yeneen ak conseil xel xalaat ak lépp ba mu demee nag moom ba soxla combat bi na ma combat bi dama koy tëgg. xaw na def tuuti parce que dama ko noonu suma kàddu moom kon joxe naa ko pare wax li may wax pare góob ma dinaa ci delluwaat mun ma sa papa laa. après ci la dem waxtaan ak sama papa. bon waxtaan tamit aussi suma mag Pape Ngom. ñoom ñaar ñu waxtaan lu yàgg. waxtaan tamit ak le ministre ministre des sports boobu ma nekk ministre des sports muy Matar Ba. gars yi waxtaan suma famille toog ñaan ma ma loolu noonu am benn problème ñu ñoo la ñaan. te tamit nit amul lu dul waajuram sama papa tamit toog waxtaan ak man amul benn problème nga ko mën a jël war ngeen mën a bëre man sa papa lu mu la ñaan war nga a bàyyi loolu ma tax wax waajuroo tax daal ma dama jàppoon man sama xol ni dama ko jàpp ma bàyyi ko waaw loolu la quoi ñëw léegi ci beneen question da ne demoon nga ba bëgg a bàyyi làmb tribunal moo